koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ndax fàttali rek lay doon ndax liggéey bi bu demee ba agsi fii ñëpp xam nañ ci taxawaayam xam ci yitteem xam ci positifam ba yàlla def suñu borom def li ci ëppoon àgg kon ñu ngi koy sant di gërëm taalibe topp ci ginnaawam wax ji nag du gudd ndax dañuy sant bokk jullit yi ak bokk taalibe yi rawatina fii àdduna toll ni ñëpp maase xam wopp ji nga xam ne suñu borom wàcc na ko ci kaw suuf muy balaa di mbas moo xam ne yàlla ko fi yàlla teggi ndax ñëpp xam nañ ne li muy gàllankoor kon itam bu yàlla defee ñu dem ba mu demee waat nii ba ak woy fal am ci ñëpp gën a ci sàmmonte li nga xam ne moo leen di aar di aar ñëpp ndax jàngoro kum ne ci yow war ngaa fexe bu bu ko wàll sa morom comme néew ci itam war ngaa feex ba di ko wartandi loolu suñu borom ko santaane kon nag ñu ngi nuyu ñëpp di rafetlu nag mboolem bokk jullit yi ak bokk taalib yi ndax jàkka ji wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma'allahi yëpp nag maase giñ maase giñ maase ci xam ne jàkk ji néegub yàlla lépp lu ñu askanale Serigne Touba jullit yëpp ko bokk ndax Serigne bi loolu ndund la doon waxee fi lii nag firnde li ci ne wuusi ko ko ñëpp wuusi ci loolu xam ne ji xam ne néegu bi yàlla ba tax mënoo fi xàmmee murit ak tijaan ak xaadir ak laayeen ak yeneen tarixe ci des ci Sénégal ak ñi nga xam ne sax ay jullit lañ te askanu ci tarixe loolu lépp mooy li nga xam ne suñ borom santaan na ko ne te rasulullahi indi ko al muminu axooxul muslim innama moom leen ixwatun fa aslihu bayna axawaykum lim santaane it ci jullit yëpp maas ci àndandoo nekk benn lii bokk na ci li koy firndeel kon nag ñu jeexale foofu kàddu yi jox sëriñ ba koy fay yóbbante bi nga xam ne war na ko jottali ci bokk taalibe yi ko ci bokk jullit yi mu leeral ko ni mu ko war a waxee ginnaaw boo xamee am na ci ndigal lu bàyyi ko ci ki fi nekk sëriñ Tuubaa di ak Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér mu jottali ko bokk taalibe ak bokk jullit ñëpp dégg ko. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.